boo may seet si réseau yi yow te foo bindal te kàddu sama waa ji teg ci o dolil yaa ngi kàddu waa kan moo disponible génn man noppi jiguma bugguma noppi génn leen ñu waxtaan génn leen waa koñ bii te jéggi loo leen lalu naaj bu tàng bii génn ay waa génn leen gis nga yow soxna si dafa jot nga jox ñu suñu liberté di see que yow boo dul seytaane doo jinne doo nooxoor doo dëmb dina ma jaaxal man parce que yow man guddi lay liggéey ah damay fanaane liggéey ba ba set su ma ñëwee ba tëdd nga toog sama palanteer bi rek naan jéggi génn si leen génn si leen sama jabar day dem bay teg añ bi bu la déggee rek parax parax yi lépp daw si ñëw toog fii te bu nekkoon sa ni wax lu am njariñ mu neex mais sama palanteer lay toog di leen déglu. bu ñu jógee si Macky sàll yéen a ngi si Sonko bu ñu jógee si Sonko El Hadj Diouf jaar si Aliou Cissé dem si nu mu tuddati Waly jógee fa dem Pape Diouf Dip dem jógee fa Ngaka ku nekk ngeen nii wax bàyyi leen doomu yi ngeen lekk fii làng ku nekk ngeen dugg fii génn fii cappi cappi lu ma gën a métti ba gën métti mooy yow sëyoo bàyyi woo dem na enquête si yow nee nañ yow foo dem rek paayu la maye ji woon sax balaa ñu seen kër nga roñ say bagaas ñibbi sëyoo ba pare nekk fii di sonal nit ñi quoi loolu day jeex. léegi man si boppam maay jël wanteer la parce que yow mu la wanteeree nga dem sëy man maay noppalu sama ginnaaw palanteer bi ngay toog di wax rek te ma amerde à la fin ay waaye ku siy jàpp gars yi kan moo siy jàpp ñëw euh, takk kii rek lay war a suuli ay waaye jàpp leen si wanteer wanteer il faut nga dem parce que yow mooy loolu te lu ma gën a metti nang ba gën ma metti gën a metti sama benn melo bi ma àndal mooy benn melo bu la tuddee yow doo benn melo yow cinquante deux melo nga yow waaw balaa may dee ngay góom sa lex yi bu ñuy wax ak yow ngay jël sa loxo bi di ko teg sa lex yi di wàccee ti sëggal dox ti yaru yarlu te mën nga tas dëkk waaw li may tëdd si néeg bi du ma lay dégg ngay wax yëpp du ma lay dégg sa gémmiñ gi yëpp su ma ko àdduna toj waaw dama ko raay nii si kaw rek jox quelques exemplaires mais yow li ngay wax yëpp dossiers yi ngay wax fii yëpp lépp dama koy dégg gëj naa nelaw nelaw gu doy saa yi moo wàccee rek sama kaye laa yotti bind bàyyi li nga mel bàyyi li nga mel.